salaamaaleykum mbokku déglukatu réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci réew mi FM lay amee euh, mercredi bu jotee 15h euh, jàpp 16h euh, fii ci réew mi FM comme ni koy defee saa su nekk weer wu jot rek ñaari émission dañ koy jagleel suñuy partenaire Afrimac Afrimac di projet d'échange d'entreprise de technologie d'entrepreneur ak et d'innovateur ci ay domaines yi nga xam ni am nañ impact économique euh, diggante îles Canaries ak l'Afrique de l'Ouest euh, financier à hauteur de 85 pour cent euh, par le FADER au programme opérationnel de coopération territoriale ñu gën ko xam ci Interreg ñoom seen but c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des entreprises le leadership mais également l'autonomisation des femmes réalise des séries d'actions promotionnelles visant à sensibiliser renforcer la participation des femmes sénégalaises aux initiatives économiques et entrepreneuriales ndax euh, comme ni ma koy faral di waxee ñoom jàpp nañ ni les femmes peuvent changer le monde impacter de façon euh, positivement donc suñu thème importance des groupements de femmes ak leadership féminin loolee tax ñu dalal euh, femme boo xam ne moom ab kuréel yore mi ngi tudd mag Maggy Ndawi tey euh, Maggy suba euh, mi ngi tudd Yacine Diop moo jiite boobule kuréel Yacine ñi am mbégte contenté dalal la fii ci plateau sans filtre ma bàyyi la nga nuyoon teeg mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo lay déglu. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Rewmi mi maa ngi leen di nuyu di leen ziare. di nuyu diaspora bi du nuyu waa Sénégal ñëpp di jaajëfal waa réew mi FM ci invitation bi ñu ma invité tey. Mhm. di am contentement bu baax. d'accord euh, merci beaucoup yow yaa jiite ndawi tey magi ëllëg. waaw man nga ñëw ci concept bi. waaw man maa jiite ndawi tey magi suba. Mhm. ndax ndawi tey ñooy magi suba. Mhm. te ndaw moom. dafa am njariñ mhm. dafa am njariñ ci dooleem ak ci xelam ak xalaatam mhm. waaw mhm. lu waral ngeen jël tur boobu ndaw yi tey xanaa di suba waaw parce que comme ñun ay ndaw lañ ah ñu moo tax ñu naan ndaw yi tey magi suba te ay jigéen kese ñoo te ay jigéen kese la waaw lan moo tax ngeen taxawal groupement bi pour liggéey xam nga ñun jigéen femme développement kër yi moom il faut nga jàpp ci loolu moo waral ñu def suñu GIE tuddee ko ndawi tey magi suba waaw euh, yan façon jigéen ñoo bokk ci groupement bi ndax dañoo am seeni diplôme mu mhm. liggéey mhm. wala dañoo am formation ba pare boo xam ne amul mu liggéey mhm. euh, yan jigéen ñoo nekk ci kuréel gi ak si ñaata lañ toll euh, jigéen ñi à peu près ñi ngi toll ci ñaar fukki jigéen ak juróom waaye xam nga jigéen moom doone liggéeyoo dara ñii ñi ngi ci njaay mi ñii ñi ngi ci couture bi ñii ñi ngi ci lett yi am na ci tamit ay ndaw yuy jàng tamit waaw ñëpp ci ndaw yi tey mag yi ëllëg ñëpp ci lañ bokk tollu ngeen ci vingt cinq waaw est-ce que da ngeen di former da ngeen di former jigéen ñi wala yéen doo leen former waaw loolu lañu bëgg mhm. dañu bëgg dem bay forme mhm. loolu lañu bëgg parce que ni ñuy góorgóorloo nii jël suñuy GIE ñu tuddee ko ndawi tey magi suba ci loolu la ñuy lañ visé waa mais euh, est-ce que mus ngeen génne bénéficier ay financement yu jógee un peu partout ndax état bi mus na leen jàppale walla yenn ONG yi mus nañ dugal seen loxo ci seen kuréel bi. déedéet ñun amaguñu ko. amaguñu ko est-ce que yéen a ngi def ay jéego pour ngeen am ko. waaw ndaxte comme nii ma def nii tey ba ñëw fii. Mhm. ah ci lañ nekk dañoo bëgg ku ñu jàppale mm-hmm. waaw dañoo bëgg ku jàppale eh, groupement bi ci yan liggéey ngeen di faral di yëngu waaw ñun ñu ngi defar jus koko mm-hmm. junjeer yi ñu ngi defar tamit ay yaawur ak savon waaw ak teinture tamit mm-hmm. waaw ndax mi man mi seen présidente yooyu yëpp dama ko def. d'accord waaw. mais xam nga pour def yooyu yëpp il faut nga jaar ci formation mënoo ñëw. Mhm. tëb tëb rek nga ne dama ñëw bëgg euh, bokk ci ñuy defar transformation produit. Mhm. Mhm. wala damaa bëgg a ñëw euh, defar savon. Euh, da leen di njëkk a former. laata ñuy defar. waaw. waaw noonu lay demee. waaw te soo leen paree après naka lay demee. ah suñu paree dañuy def suñuy emballage. dem jaay. noonu la ñuy def léegi xaalis bi xaalis bi ñu xool nu ñuy def am lu ñuy teg di denc noonu la ñuy def bu ñu kiyaatee ñu jëlaat di liggéeyaat. di liggéeyaat waaw bénéfice bi ngeen jël dégg tege da waaw bëri na ci surtout ñuy wax jigéen ñi dañoo mën yàq jigéen mën na mm-hmm. liggéey mais lu mu liggéey mu yàq est-ce que yow nangu nga d'accord nga ci boobu idée <laughs> waaw xam nga buñ nee jigéen ñi du ñëpp mm-hmm. ndax yaakaar naa ne buñ nee ndaw yi tey magi suba. Mhm. yow liggéeya la tax a jóg ay ndaw yuy liggéey pour suba. Mhm. ñooñu duñu yàq. Mhm. ñooñu yaakaar naa ne ñoom lii seen vision mooy euh, gis ñu leen gën a jàppale ci liggéey bi ñu gën cee avancé mais duñu ñu yàq. waaw mais bëri na si peut-être yéen doo leen yàq. mais bëri na si jigéen yoo xam ne tey tey tey mun nañ teggi benn nattu un million deux millions. Mm au ñu liggéeyee ko dañ koy jël ñu def ko ci xew yi. Mhm. waaw xew moom mënta ñàkk. waaye nag da cee def tuuti rek li ci des nga denc ko pour suba. nga am loo liggéeyewaat. d'accord waaw. Uh-huh. Euh, euh, yan projet ngeen jot a réalisé. waaw bëri na. Uh-huh. ñi ngi bëgg nañ def di def mënal suñu bopp. Uh-huh. am suñuy këyit. bay dem di dikk di jaay suñu produit. Mhm. à l'extérieur fu nekk. Mhm. waaw. Euh, donc pour le moment seen produit fii kese ngeen koy jaay. waaw fii rek la ñuy jaay Dakar kese la ñuy jaay sax ci région yi. déedéet demagul ci région yi mhm. waaw. mais li ngeen di produire. Euh, chaque jour da di produire par jour wala. du mën naa ne xam nga rek dakaar moom yaa ma gën a xam. boo amul ay moyens moom. nu nekk di nga ko def. ba mën a am. njarte gi moo dul demee moo dul demee noonu. waaw te loolu la ñu soxla. yéenay dem di jaay wala da ngeen di placer ci boutique yi. de ñun ñooy dem di jaay rek bu ñu produire ba pare ku nekk yóbbu dem jaayal sa bopp. Mhm. waaw. d'accord am na solo. Mhm. Euh, euh, donc tey yéen li ngeen gën a soxla moo di wax nga ko sànq ñu ku leen jàppale. Mhm. Euh, ba ngeen mën a dem. Mhm. ñu génn tuuti fànn boobu wax parce que période politique lañ nekk. waaw jigéen ñi <laughs> ak ndaw ñi surtout. nu ñu duggee ci politique bi. ndax jàpp nga ni jigéen ñi ñi ngi engagé wu ci biir politique bi waaw. jigéen ñi ñu ngi ciy engagé wu. Mhm. parce que jigéen moom xam nga yaam a gën a xam jigéen moom fu nekk ma nga fa. Mhm. te politique euh, euh, moo a koy def. Mhm. mën naa ne politique moom bari nañu koy def. waaw surtout côté maire ñu bari nee nañ jigéen ñoo gënoon tey euh, jigéen bu nekk maire moo gën a mën a gérer. Euh, surtout góor boo xam ne moom lañ jël ñu teg ko maire parce que nee nañ boo xoolee jigéen nu muy gérer këram. Mhm. Euh, kooku soo ko dénkee mairie. ñu mhm. bëri jàpp nañ ni euh, foofu mooy gën a dem te pour pourtant bëriwul fi Sénégal mairie yoo xam ne ay jigéen ñoo ko jiite. Mhm. jigéen moom ñun jigéen moom ay jàmbaar lañ macha allah. ñun moom kenn demul ñu des. te duñ ko nangu. parce que ñu lépp ña nga ca. ña nga ca liggéeyu kër ga. ña nga ña ngay ca di dawal suñu bopp. kon yaakaar naa ne ñun war nañu mën a yore sax euh, mar nañu mën a nekk sax présidente waaw. est-ce que yéen am ngeen ay ambition politique xalaatoo leen peut-être je sais pas euh, dugg ci politique bi. waaw politique moom nee naa la war yow yow ku jeex nga ci mairie. <laughs> <laughs> waa yàlla de moom waxul kenn dara. waaw yàlla moom waxul kenn dara. Mhm. waaw. d'accord waaw am na solo di fàttali rek mbokk yi nga xam ne yéen ñu jël en cours ñu ngi euh, waxtaane rek euh, euh, solos groupement de femmes yi ak leadership féminin ndax na bëri na femmes yi nga xam ne dañuy lëkkaloo di def ay groupement di def liggéey bu mucc ayib tey nag émission bi dañ ci ànd ay partenaires yu ci mel ni waa Afrimak ci noonee may remercier Sergio Yoré du président euh, Cabildo de Fuerteventura di remercier itam euh, Doña Lola Garcia Martinez moom mooy première euh, vice-présidente bu Cabildo de Fuerteventura di remercier itam Carlos Gutiérrez Robiana mooy directeur Afrimac 2 Momar Dian Diop moo di président association des Sénégalais de Fuerteventura ak personnel bu Cabildo de Fuerteventura ci biir émission bi fii ak di ngeen déglu euh, Moustapha Sy moom coach la en entrepreneuriat ak développement personnel moom dina ñëw joxe ay recommandation ak i conseil pour képp ki nga xam ni jigéen nga euh, am nga idée de projet war nga bëgg nga demal sa bopp ak solo solos groupement euh, de famille moom loolu lépp dina si daal di ñëw ñuy woyal rek ak Yacine Diawo di présidente jiite ndaw yi tey mag yi ëllëg tey ñu bëri nee jigéen ñi duñu jàppalante da ngay gis jigéen boo xam ne yàlla dénk na ko ay moyens mhm. à côté am na koo xam ne soxla na financement mais du ko jàppale lu tax iñaañante boobu diggante entre jigéen yi waaw man ak lu euh, tax jigéen ñi nga jàpp ñoom du ñu jàppale seen moroomu jigéen man soxna fay loolu dama koo dàq mhm. ndax man ñun moom man dama naan man damay jàppale doomu aadama Njaay mhm. ndax nit yaakaar naa ne loo ko tanee war nga ko ci dimbale ndax yow mënoo ne yow rek yaay man yow rek yaay xam keneen du xam loolu du jëmale réew kanam loolu day delloo ginnaaw réew waaw euh, ñooñu nga xam ne ñoom loolu la ñuy def ci yooyu la ñuy dox yow loolu leen di wax ñoo xam ah. mën nañu am nañ mën nañ war nañ mën a financer doomu aadama mhm. waaye duñ ko def nekk nañ jigéen seen moroom mi ngi nekk dans le besoin ñu war ko mën a jàppale waaye duñ ko def waaw ñooñu moom xam nga rek danga leen di ñaanal rek yàlla baaxee leen ba ñuy jàppale ay doomu adama njaay mhm. ndax nit ki moom xolam ak euh, jikkoom mhm. pour nga dindi ko ci day xaw a jafe mhm. kon danga leen koy ñaanal rek ba yàlla baaxee leen ñuy man di dimbale doomu aadama njaay ndax dimbale doomu aadama njaay dafa am solo ndax lool moo waral tey ji suñu teewaay bi fii tey ba ñu toog fii di wax suñuy bëgg-bëgg Euh, yéen seen euh, seen kuréel bi ndaw yi tey magi ëllëg euh, mm-hmm. kañ ngeen ko samp ndax yàgg na waaw yàgg na yàggul mm-hmm. bu ñu ko sampee ak léegi matagul sax presque xanaa ay un an rek wala Mm-hmm. matu ko mm-hmm. waaw mm-hmm. yan jafe-jafe ngeen doon jànkonteel ba ngeen ko sampeeg léegi parce que un an ba léegi yàgg na yàggul waaw parce que boo defaree sa produit pour nga jaay ñu ngi yaa ngi doog a commencé pour nit ñi xam la ba nga jaay dafa difficile metti na trop dangay dugg ci marché bi di wax ak nit ñi di waxtaan ak ñoom di leen expliquer loolu moo waral ñu bëgg ku ñu jàppale ba nga xamante ne dinañ am ay moyens say produit nga mën a def say emballage yu baax di mën di jaay fu nekk waaw te emballage yooyu dañu cee war a jàppale bu baax d'accord waaw kon jafe-jafe bi mooy écoulement waaw euh, marchandise bi waaw waaw yéen laata ngeen di tàmbali projet bi mhm. euh, yéen a du yéen si dugal seen xaalis bopp waaw parce que ñun dañoo xam nga liñ naan ñu yàlla boole rek ñu xool ñu créer suñu GIE mhm. waaw noonu lañ ngeen ngeen autofinancé seen bopp. waaw demal seen bopp. waaw. <laughs> seen chiffre d'affaires. Mhm. at ci at bi est-ce que xay xayma ngeen ko pour xam. Mhm. Euh, ñaata ngeen jot a dugal ba ngeen di tàmbali ak xool est-ce génn ngeen ci après. déedéet loolu moom mënuma ci kii parce que trésorier yeeg ak bi. Mhm. secrétaire bi ñoom. ñoom ñoo ci. ñoom ñoo ci war a àddu. d' accord ma laaj la beneen laaj rek boo xam ne eh, daa xaw a génn tuuti ci kii bi euh, tey gis nañ ñu dellusiwaat tuuti rek ci politique bi. Euh, mhm. pour indi jàmm ji ci biir euh, politique bi gis nañ violence yi sànq. ci politique bi ni mu bëree. Mhm. lan nga jàpp ni femme yi ban taxawaay lañ ci war a am pour violence bi wàññeeku. waaw xam nga Sénégal moom. dañoo bëgg ay affaire yaa fii laa kii ak fii laa fële mais dañoo war a indi jàmm jàmm dafa am solo ku ci nekk yow gis nga ki la doy kooku ngay àndal kee ki ko doy lay àndal loolu yaakaar naa ne warul am pëccëxoo ak xuloo xeex jigéen ñi ban taxawaay lañ ci war a am waa jigéen ñi ñoom man moom côté bi ma nekk moom. Mhm. ñun jàmm ci lañ nekk. Mhm. waaw mais yéen parfois est-ce que euh, benn politique du ñëw jox leen xaalis ne leen ñëw leen ngeen solu ngeen ñëw bokk ci politique bi ngeen ñëw euh, bëri na si ni politique nga xam ne kuréel femmes yi genre yi la ñu soxla. Mhm. mais ñun xam nañ suñu suñu suñu bëgg-bëgg. xam nañ ki nga xamante ne. su yoree maire bi. dina am na expérience yore mairie bi. te da doon def avant muy laaj mairie. ñun dañuy xool kooku ñu ànd ak moom. waaye duñ nekk di dem di xool loo xam dañuy delloo ginnaaw. bu ñu avancé loo rek la ñuy def. waaw d'accord euh, euh, maa ngi ko doon wax sànq rek yéen kon jamono ji seen kuréel bi yéen lan moo leen empêché pour ngeen dem pour mu pour mu dox comme ni mu war a doxee. Mhm. lan nga jàpp ni tey soo leen ko amoon euh, seen kuréel bi dina dox comme ni mu war a doxee. ñun li ñu manqué bari na. parce que bëgg nañ bërëb boo xamante ne nii dañ fay daje. di fa liggéey suñuy produit amoo leen ko. amuñu ko. dañu foo leen di daje pour liggéey. dañuy xool benn kii rek benn kër rek. ñu fay daje di liggéey. je suis disponible entre yéen. waa kay. Mhm. léegi nag loolu soxla nañ ko ñu may ñu foo xamante nii dañ fay daje di liggéey. Mhm. ak problème mu financement bi. Mhm. loolu yëpp. ñun daal dañu bëgg ku ñu jàppale. d'accord waa ñu liggéey ak suñu bopp. waaw. ngeen demal seen bopp ñu demal mais est-ce que yéen a ngi teg ay jéego pour dem parce que boo leen toogee rek di xaar financement du ñëw de mais est-ce que yéen ngi teg ay jéego yoo xam ne dina tax financement yi ñëw. déedéet duñu duñu toog rek di xaar parce que en tant que man mi di présidente damay jóg di dugg ci ñoom di wax ak ñoom ñuy ñuy liggéey dañuy di liggéey waaw d'accord euh, mën nga ñëw ci produit yi nga xam ne moom ngeen di liggéey mhm. produit yi waaw dañuy defar jus defar savon jus lan ngeen di faral dañuy defar jus bissap buy mhm. di tax mhm. junjeer dañ koy defar ak màdd mhm. jus màdd dañ koy defar mhm. jus bisaab dañuy defar bisaab bu weex bi ak bisaab bu xonk bi dañ koy defar ak euh, céréale locale da ngeen koy transformer waaw ok ak yaawur bi dañ koy defar ak koko junjeer yaawur ban façon yaawur la yaawur kii la ñuy defar yaawur naturel la ñuy defar ñun waaw dañu ñaaw naturel la ñuy defar. c'est super te loolu yëpp est-ce que euh, doo leen cible les grands événements comme gis nañ xew yi macha allah ni mhm. bu bëree. Mhm. yéen a ngi ciblé événement yu mag yooyu di leen proposé. waaw seen produit yi parce que bëri na jus yi nga lim nga xam ne koy defar. Mhm. est-ce que yéen a ngi ciblé euh, événement yu mag yi est-ce que yéen a ngi ciblé aussi les grandes surfaces. parce que ñu bëri léegi euh, dañuy consommer suñu jus locaux yi. waaw loolu yëpp ñu ngi ci. ndaxte ñu bari xam nañ ñu bëri xam nañ ñu ndax dañ leen di jaay mm-hmm. surtout ci yaawur bi mm-hmm. ñu bëri xam nañu ci mm-hmm. ak kooku njeer bi waa parce que tey boo defee produit xam nga pour mu mm-hmm. gën a am visibilité. Mm-hmm. boo cible supermarché yi. comme ay Auchan yeneen ak yeneen yi nga xam ne am nañ fii ci Sénégal. Mm-hmm. Euh, bu ñuy sénégalee bu ñuy dem di ko fa gis tout le temps bu ñuy dem mun na la may publicité mun na la may visibilité moo gën porte à porte wala ngeen dem ci marché yi. parce que tey bu dee marché HLM nga dem nga jaay ko foofu. ñu dëkk HLM rek ñoo koy jënd. bu doon Colobane nga dem ñi dëkk foofu rek ñoo koy jënd mais tey boo leen woon les grandes surfaces. peut-être mën na am. Euh, ngeen euh, gën a am chance ñeneen ñi xam seen produit njarte bi gën a kii euh, njarte bi gën a dox. Mhm. commande yi gën a bëri loolu aussi sax yéen a ngi koy bàyyi xel. Mhm. waaw loolu tamit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax ci loolu yëpp ñu ci suñu vision la bokk. Mhm. waaw d'accord dañuy dem jéem a jël suñu expert. Moustapha si coach développement en entrepreneuriat coach itam en développement personnel bu dee ak technicien bi. Euh, mu euh, bu dee yembe ne rek ñu ñëw ci moom mu ñëw indi ci recommandation yi nga xam ne war na ko jox jigéen ñi. Mm-hmm. ak euh, ban jigéen ñi ban taxawaay lañu ñu war a am ci biir groupement yi. Mm-hmm. daf si am solo ak nu ñuy def rek ba jigéen ñi ñeme. li nga xam ne ñoo koy def entrepreneuriat parce que bëri na ci ñi nga xam ne dañuy bëgg mais duñu xam fu ñuy war a jaar. Mm-hmm. duñu xam itam. naka la ñuy def di nga am idée de projet mais doo xam fooy jaar pour mu mën a antu laata loolu am naa question bu ma la bëgg a laaj euh, ñi nga xam ne aussi ñemewuñu jigéen bëri na jigéen yoo xam ne dañuy am idée mais du ñu ñeme laata Moustapha di yem bu Léon bu dee Moustapha euh, mi ngi en ligne euh, nga jox ñu ko laata loolu ma laaj la boobu laaj est que noo leen di def pour jigéen ñi seen gën a am développement personnel ñoom seen bopp est que yéen a ngi tàggat loolu itam pour ñu gën a ñeme li nga xam ne ñoo koy def maanaam muy entrepreneuriat bi. Mhm. waaw yow mi nga xamante ne yow yaa nekk ci koñ bi. Mhm. da ngay jéem a sensibiliser. sa moroomu jigéen yi rek. di leen wax ñuy génn di dem def ay formation bañ a toog di tëdd di nelaw. suñu añee ba pare wala ñu def seen liggéeyu kër ba pare. ñu dem defi inscrit dem def ay formation waaw ñu bañ a toog dara di xaar ci góor yi parce que góor yi léegi joxetuñu. waaw mu mel ni rek euh, Moustapha mi ngi en ligne. Allô Oui, allô. Allô, oui, coach Oui, Sylvie. coach ça ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Sylvie. waaw ñu lay dalal ci émission sans filtre. waaw yow may fàttali coach nga en entrepreneuriat ak développement personnel noonu la bari na titre nga xam ne yaa ngi ko am. waaw euh, tey coach ñuy euh, waxtaane rek euh, solos groupement de famille ak leadership féminin loolu ci mën a wax ci groupement de famille coach laataa nga ñëw ci def ko recommandation yi Sylvie dafa mel ni dégginte bi dafa am problème bu ndaw rek est que doo xaw a yëkkati tuuti sa baat wala da nga ndékkeegu <laughs> ndékki naa bu baax a baax maa ngi lay dégg bu baax a baax yow yaa ma dégg <laughs> waaw bismillah léegi maa ngi lay déglu waaw may wax rek mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu Moustapha si coach la di yëngu ci entrepreneuriat ak euh, développement personnel euh, tey ñuy waxtaane rek solos groupement de femmes femmes yi nga xam ne dañuy euh, yëngu am benn kuréel di ci liggéey liggéey bu mucc ayib ak li nga xam ne moo di leadership féminin loo ñu mun a wax rek ci groupement de femmes yooyu nga xam ne jamono ji bëri na fi coach Euh, jërëjëf Sylvie comme ni nga ko waxee euh, yàlla dogal ñu tudd Serigne Mouhamadou Moustapha si mhm. waaw di ko su ci wàllu entrepreneuriat développement personnel leadership communication ak yeneen. Mhm. waaye tey dañuy ñëw rek ci wàllu domaine entrepreneuriat. Mhm. rawatina ñi nga xamante ne ñooy groupement de femmes ndax yàlla dogal na ñu nekk coach ci wàllu gestion administrative et financière. e quand on parle de gestion administrative dañuy wax lépp loo xamante ne rek ab kuréel la moo xam association la moo xam OCB maanaam organisation des comités de base. Mm-hmm. boobaa nag dañ ci lim ñi nga xamante ne ñooy AIC yi noonee it lañ ci lim ñi nga xamante ne ñooy groupement de famille. Mm-hmm. et que ñu gis ci Sénégal. Mm-hmm. mu bokk ci réew yi nga xamante ne biir Afrique. bëri na lu ay kuréel di dajaloo mu bokk si ñi di doon ay jigéen. Mhm. ñoo xamante ne seen i at day làkk fanweer jëm kaw. Mhm. waaye noonu it la ñuy gis ñoo xamante ne ay ndaw la ñuy doon nekk ay jeunes. Mhm. seen at bokk ci li nga xamante ne mooy fanweer wàcc ba ci fukki at ak juróom dajaloo ci ay kuréel yi ñuy wax association. alors de nos jours ñu def remarque que ne bëri na ay groupement de femmes yoo xamante ne am nañ. waaye li ci ëpp solo mooy lañ doon yëg keroog. ak lu yàgg tey jamono ji ñu toll ci Sénégal bokkatul parce que gis nañ ne jigéen ñi déjà xam nañ seen bopp. Mhm. gëm nañ seen bopp yëg nañ seen bopp waaye xam nañ it lan la ñu woon jariñ li nga xamante ne mooy askan bi. Mhm. moo tax noonee moo tax tey xaaratuñu kenn ci lenn. Mhm. xam nga bu njëkk ba maanaam groupement de femmes bu musaan a gis. Mhm. politique daf ko lëmbee woon ba dañ doon xaar ban financement mooy ñëw. Mhm. ban subvention mooy ñëw pour que ñoom ñu mun a def li nga xamante ne mooy seen liggéey. effectivement mais tey ñoom ñoo muus ba ñoom ñooy dem de projet ñoom li nga xamante ne mooy kon pour mun a sukkali li nga ne mooy seen am-am. Mhm. et je man mi nga xamante ne tey liggéey naa ci ay kuréel yoo xamante ne yu mel ni union africaine noonee comme plan international. Mhm. dañ doon dem di gis ay groupement de femmes yoo xamante ne ñoom sax ñooy autofinancé seen bopp. c'est-à-dire mhm. ñoom ñooy jël seen financement bopp à travers seen caisse yi ñu amoon seen i caisse d'épargne. Mhm. yooyee la ñuy jël tey moom la ñuy sukkalee seen i koom. kon donc defe naa Sylvie loolu rek doy na pour ñu mun a wax réew mi ni Sénégal jigéen ñu fi nekk jigéen ñu am pas-pas lañ. jigéen ñu gëm seen bopp lañ. jigéen ñuy daan doole lañ. mais nag dafa am benn problème benn remarque boo xamante ne defe naa yow def nga ko man def naa ko sama yaay jooj mbaa keneen a keneen ku toog mun na ko def ci réew mi mhm. mooy gis nañ ne jigéen ñi si bëri ñenn ñi bu ñu jugee ba commencé demal seen bopp <laughs> ne am ñu bëri ñu xamante ne bu ñu demee ba toll fenn fii dañuy suux mhm. suux mi nag soo ko gisee ci wàllu entrepreneuriat mhm. ñett moo koy mën a waral benn bi mooy boo deful étude terrain bi maanaam étude de de la situation wala su boobaa boo xamul lan moo lay xaar lan nga war a def nan nga ko war a defee kan nga ci war a àndal su boobaa loolu rek mën na jur njeexintal boo xamante ne du bi la gën a. d'accord maintenant ñaareel bi mooy bu fekkee la ngay def. xamoo ko mhm. la ngay def ràññeewoo ko wala la ngay def amoo ci gëstu bi war mhm. boo koy def à demi mesure nga koy defee te tout le monde sait que ne lépp looy defee à demi mesure jeexantal bi du doon li la mhm, du dem maintenant nag ñetteel ëpp solo mooy léeg dañuy def mais booy def di sóoraale maa ngay def di ragal. Mhm. mooy sa fit fa mu yem rek fa la sa koom di yem. Mhm. xam nga entrepreneuriat risque la laaj ba pare. Mhm. damay dégg tubaab di wax ne ki ne risque rien n'a rien. muy kàddu bu dëgg maanaam nit ki loo jéemu rek. munoo ko am. léeg day laaj nga ne ah xaaral damay jéem mais nag ak ñuy jéemee waxuñu la booy jëm am alal ju bëri jóbbu ko. bu marché bi daanoo sa alal maanaam bu marché bi daanoo rek sa alal yëpp dafay yàqu. dëgg la. et tey boo dee seet jigéen ñi su bëri bu ñu toogee dañoo am lu ñuy wax idée de projet. Mhm. te loolu ëpp solo. Mhm. xam nga tey maanaam nit bi ñun en tant que coach en gestion de projet. Mhm. idée de projet c'est la base. parce que nit bi boo ko joxoon alal ju amul projet mooy alal ji day naax saay du xam fan la koy def. dëgg la am na ku denc tey xaalisam mais xamul lu mu koy def parce que mm-hmm. amul idée de projet. Mm-hmm. mais boo amee idée de projet bien avant yow ngay yóbbu ci li nga xamante ne moom mooy sa koom. Mm-hmm. su boobaa bu alal ji ñëwee rek sa projet da nga koy mën a doxal. léegi nag ci wàllu idée de projet yooyu Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ne li yàlla xam doy na. parce que léeg-léeg nga am donte dina la si conseiller. Mhm. mais comme si dafay sàcc li nga xamante ne moom sa poche. Mhm, bëri na fi muy indi nag suñu grande dame yu bëri. boobu heure dañ koy def sama groupement de famille su ko leen dama leen koy wax. nga amee idée de projet da koy bind. même boo mënul bind boo jàngul am nga doom mbaa set mbaa kenn ko wóolu koo xamante ne mënees naa bind nga woo ko mu bind ko waaye bu ko bindee ba noppi da koy dem yóbbu sécuriser ko mu leen na la lii sa idée de projet la yow yaay borom yaa ko moom boo noppee foofu nag booy taxawal projet bi day doon projet boo xam même bailleur bi bu ñëwee day yomb mu teg la loxo parce que day xam ne c'est un projet déjà sécurisé mais un projet déjà étudié loolu mooy problème majeur bi nga xamante ne dañ koy nemeek si suñu groupement de femmes alors beneen bi mooy boo dee seet ñoom projet yu bëri yi ñu am projet d'épargne kese la. kese mooy denc ga lii. Mhm. bu weer bi dee wala bu ñu toogee ba tabaski ñëw na wala dara ñu toj kees bi. Mhm. ku ne li nga dugal la ñu si leb woon fay seen léegi demal ñu am. mais après au final aussi mooy xaalis rek nga def ci liquide c'est bien c'est mhm. bien beau. mais tey baax na des projets personnels c'est-à-dire sa c'est des projets mooy projet la boo xamante ni yéen ñëpp yéen a ko bokk yéen groupement bi. ngeen dooleel la nga waroon am kon dina xaw néew. mais imagine tey bu fekkee yaa jël sa koppar ci loolee ngay denc boo ci paree. Mhm. jël benn projet mooy lan soit nga ne ah xaar ma dugg ci wàllu jënd ak jaay yow xaar ma dugg ci wàllu transformation xaar ma dugg ci wàllu lenn ak lenn. Mhm. mais loolee it boo koy dugg conseil bi may njëkk a joxe site bi mooy. Mhm. demal nga xool un expert dans le domaine. xoolal koo xamante ne xam màcc. mu leer na leen leer yàlla kii <laughs> mhm. mi la ku mën mbir mi la ku yëg mbir mi la mhm. waaye ku doon ko ak ñi nekk ci mbir mi la mhm. ba moom sax bu demee rëttal dina la mun a wax ci kan ngay dem ana fan ngay teg say tànk ak ñen ñoo yor njeexantal bi rafet dëgg kon donc loolee dafay baax maanaam gëstu te nag loolu mooy suñu problème yaay yu bëri mooy soit du ñu gëstu te boo dul gëstu rek boo dalee ci kenn koo xamante ne sax xëy na xam nga xam nga réew mi yàqu xam nga li tax ma ne la réew mi yàqu. Mhm. tey par exemple ñun ñi am diplôme def nañ ba tolloog dayoo ak ku amul diplôme. Mhm. ndax tey bu doon dañuy xool fa ñuy waxee xam nga wax dafa jooy ñu ne ko loo jooy ma ne a wax moo waru woon wax <laughs> wala fañ ma lañ ma waru woon waxee wala amaana nañ ma waxee lañ ma waru woon waxee mhm. cela veut dire xam nga bu fekkee da ngay def dara mhm. te ka nga koy defal àndoog moom mhm. dafa mel ne da nga koy contre <laughs> tubaab moo ne tout ce qu'on fait pour moi sans moi et contre moi tey xam nga dafa bëri naan la bon émancipation am na. Mhm. jigéen ñi dañ leen wax dans ñu am accès dans les instances de prise de décision. Mhm. jox nañ leen cër bi ñu moom. Mhm. parti politique yëpp boo dee dañ lay wax ne les groupements de femmes en avant. jigéen ñi la ñuy dooleel. jamono ji ñu toll nag muy surtout les élections locales li ngeen gis façon ku bëgg ku ne. ku bëgg a yor commune bu ne. dina ñëw da ngay jaral mu fekk la sa kees mu toog dugal ci ab cent mille ma trois cent mille mhm. kookee moo lay naxee lenn benn mhm. mooy épuiser sa sa idée de projet mhm. te moom mooy toog la naa ko ñunde lii lay waaj lii lañ bëgg a def déjà am na idée de projet boo xamante ne partagé nga ko ak moom moom na ko xamoo boo xam day toog xamoo boo xam du toog mais quoi qu'il advienne moom moomu bul fàtte ne dafa mbootaay bu ko doon bu mu àndal kon ñooñu jël nañ sa idée de projet et pourtant tu l'as parlé juste par ndax lan da nga kaa jaay à travers benn cent mille benn deux bu ñu teg sa caisse. Mm. déjà ça c'est le problème dama parfois dama koy gis. Mm. da ngay bu benn élu locaux ñëwee. Mm-hmm. accéder ci benn structure de base bu ñëwee toog di waxtaan ak ñoom prip da ngay sentir que ne ñi da ngay sentir que ñoom ñu ngi commencer jël seen idée de projet di leen ko jox. Mm-hmm. déjà kon mu nekk benn problème boo xamante ne suñu yaay yi lu ñu war a éviter mhm. mais beneen bi mooy il faut que ñuy jël ay risques mais trop de risques mhm. parce que trop de risques final dafa la décourager lool mhm. à force de prendre beaucoup lay indi ne di nga dem ba benn moment yow sax yaay sentir que ne li nga doon def xëy na amaana ana njeexantal ba ngay laaj wala où son les résultats. Mhm. alors que dans un projet tout le monde sait que ne à travers l' objectif général dafay am lu ñuy wax objectif spécifique. Mhm. mais ci biir objectif spécifique boobu nag ci la say activité di am noonee ngay xaale ay résultats. Mhm. ma développe. maanaam boo déggee ñu lay wax objectif général objectif général mooy ana lan nga nar lan mooy sa idée de projet en tant que tel. ci lan nga bëgg yëngu ci lan nga bëgg dem mais loolee ngay yëngu nag dina am ay objectif spécifique hmm. maanaam yan porof ndoll laa mën a jaar porof ndoll yooyu nag su ma ko jaaree ana amaana fan la mu mën a yóbbu hmm. bu loolu weesoo nag hmm. dangay teg li nga xamante ne moom la ñuy wax activité maanaam sama objectif yi su ma ko bëggee am yan objectif laay laal fan ak fan laay dugg boo ko moo xool lan mooy njeexantal bi njeexantal yooyu la ñuy wax résultat et à travers les résultats nag la mën a xam ba xam bii projet projet la bu ñu war a defaat mm-hmm. projet la bu ñu war a sukkaliwaat la mm-hmm. projet la boo xamante ne mënees nañ kaa dooleel ba bailleur bi bu ñëwee buñ ko ko wanee site bi defe naa mu gis ko incha allah am na solo coach mu mel ni rek daa mel ni tontu nga daal ci recommandation yi ñoom seen kuréel gaa ngi tudd ndawi tey mag yi suba daanaka ñoom ñoo autofinancé seen bopp mais lan nga leen di conseiller Euh, noo leen di orienté pour seen projet bi gën a euh, mën a dem. alors ndawi tey magi suba déjà cette expression rek tour boobu rek buñ ko doonee gëm-gëm bu nekkee si ñoom cela veut dire que ne c'est des personnes yu am vision mhm. parce que tey ndaw tey bien sûr ñoom ñooy doon magum suba mhm. mais ñooñee tey la ñu soxla xam nga boo fekkee muy réew muy islam muy yàlla bi nga xamante ne mooy suñu borom subhaanahu wa taala buy soxla jàmm bi daf koy soxla ci fi mu toll ci dooleem fi nga xamante ne mënal na boppam mhm. et que tey li ñuy xaar ci ab ndaw ci réew réew mu mel ni Sénégal plus de soixante quinze pour cent nekk ay Mhm. tey ndaw ñooñu lan la ñuy xaar si ñoom mooy tey ñoom ñu doon ay activistes ñoom ñu doon des personnes yoo xamante ne visionnaires mhm. des personnes yoo xamante ne tey ñoo ngi résoudre ay équation nekk solutionniste mhm. mais xaaruñu ci kenn ci lenn ñoo ngi dooleel seen bopp parce que man je le dis parfois su ma fekkee ab structure ab kuréel boo xamante ne yaa ngi mënal sa bopp yaa ngi demal sa bopp te xaaroo leen Sylvie man miy wax je mooy de trente cinq ans xëy na tey bu ñuy xool lan lay tekki mooy pourtant tey samay yaay lay formé samay morom foi bi mhm. gëm-gëm la bu ma amal sama bopp la et que tey ñoom ñooñu gëm-gëm boobu la ñu am je le dis tey xëy na ndaw ñu bëri yeewu nañ lu tax ñu yeewu mooy bu njëkk ba homme politique yi ñoo ñu doon sonal et je le dis pourquoi mhm. ñu doon sonal mhm. mooy dañuy ñëw gëm loo la loo xamante ne da lay tàyyal loo parce que tey bu fekkee ba ngay liggéey alal nga si jublu nit ne la kaay ma yombalal la ko kaay ma jox la ko te dig rek la yem maanaam ci dig la yem nekkul loo xamante ne daf la jox nga téye ko daf la dig ne ma yombalal yelloon na la parce que la mhm. def na si dans ta mémoire mhm. def na ci sa bopp que ne kon da nga a mun a toog mu yombala la benn bi alors que tu dois visionnaire bi mu nekk moom tey fi ñu ko teg fi ñu ko woo dayo boobu mu am yow dayo boobu la am je l'ai je l'avais parlé euh, il trois mois ci benn émission bu ma amoon Afrique du Sud ci benn mhm. télé bu ñëpp Linen je disais que ne tey boo dee seet Afrique du Sud bokk na ci réew Afrique yi nga xamante ne ñoo gën a développé Mm-hmm. mooy tey réew yu mel ni Nigéria réew yu mel ni Soudan réew yi nga xamante ne dafa mel ni Afrique du Sud yi mel ni Gambie bi tey nga jege ñu pourquoi seen i ndaw gën a sukkandiku ndaw yu mel ni comme par exemple tey li mel ni Sénégal. Mm-hmm. parce que tey ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne mooy bailleurs yi sax la ñuy gën a liggéeyal que mm-hmm. en tant que tel et quand je parle bailleurs je parle je juste énumérer ñi nga xamante ne ñooy les ONG les organisations non gouvernementales yi nga xamante ne tey. bu ñu ñaari identité soit mm. dañuy ñëw fekk la avec benn idée de projet bu mm. cadré wu ñu opposé wu pas non ñu jël ko fexe def de telle sorte que idée de projet bi nga am bi nga xamante ne lu mat la lu baax la te ñoom yër nañ ko gis nañ lii nii bokk na ci seen i domaine d' intervention. Mhm. ñu ñëw ñu buute boobu projet mu jàll. Mhm. mais nag au contraire bu fekkee dañoo ñëw fekk la nga am idée de projet boo xamante ne baaxul li ñuy jëkk a def mooy dañuy dem ci li nga xamante ne mooy programme de renforcement bu ñuy am ak yow. Mhm. sukkali sa xel. tàggat la ci wàllu développement. tàggat la ci wàllu gestion de projet ba pare mais nag su boobaa dañuy ànd ak yow financer sa projet. c'est ça qui manque de nos jours. Mhm. mooy ñi ñu am ñi ñu yor nee naa ay intérêt personnel bu ñu koy défendre yow mi nga xamante ne yaay activiste il faut nga muus. Mhm. tey jeunes yooyu toog jeunes yooyu nga xamante ay visionnaire lañ jeunes yooyu nga xamante ne tey xëy na ndawutee lañ mais magu ëllëg comme on le dit mhm. tey nit lañ ñoo xamante ne bis ñi ki tey nañ jàpp ne Sénégal dañ leen a yaakaar mhm. nañ jàpp ne Sénégal dañ leen am ay xel mhm. nañ jàpp ñoom ci boppam mënees nañoo defar réew mi ñoo xam nag ku si nekk yaa xam na ngay tojee sa bopp yeneen gis nga ku ne bu ñu joxante woon rendez-vous tey ci biir rajo Rewmi FM. Mhm. ku ne bokkul kër bi ngay jóge mais defe naa ñun ñëpp ñooy daje foofu. Mhm. quand on se donne rendez-vous au sommet yaa xam fan yoon ngay jaar yaa xam noo fay jaaree. yaa mhm. xam noo fay doxee mais fexe def de tel sorte que booy ñëw nga ñëw ak parcours bu rafet. waaye booy ñëw nga ñëw sans infraction booy ñëw nga ñëw ñëw bu rafet boo xamante ne dinañ xam ne da ngaa séminé. dinañ xam ne yow ba dimb taxawee kenn amuloon ku jàppale réew mi bokkoon nga si ñi nga xamante ñooy xeex donc accueillir et leur motiver leur encourager et leur dire que ne ñun xëy na tey li ñu soxla ci Sénégal peut-être am na ñenn ñoo xamante ne am nañ sens ñu subir li nga xamante ne mooy suñu formation bénéficier wu mais mhm. par contre y en a d'autres ko amul mais yàlla moo leen may donc mhm. tey jeunes yooyu dañ leen di ñaanal dañ leen di dooleel. Mhm. dañ leen di kattanal et on leur dit tous nos encouragements. ñu ngi dugg na ci lenn loo xamante ne quand on parle de projet. dina am ku la déstabiliser. Mhm. quand on parle de projet dina am ku la wax mooy yow li nga la mooy yéen yéen xamoo leen seen bopp. quand mhm. parle de projet parce que sénégalais la yàlla bindee mhm. noonu. mooy bu mënul dem bu la gisee ngay dem dalay yaakaar ne yow mii te la xamoo sa bopp. Sénégal moom mel ne soit nga dem. <laughs> voilà en fait daf lay décourager loo. que je le dis tey on la rajo on témoin de pas mal de personnes. am na ñu bëri tey ñu perte seen projet li tax ñu perte lii la confiance en moi dama gëm sama bopp mhm. fu ma nekk dama yaakaar ne sax maay mu c'est-à-dire loolu gëm-gëm la bu doomu aadama war a mën a am mhm. c'est pas de l'humilité on le on à côté mais bu ñu ci projet mhm. dis-toi que ne sumb yow yaa daan yow yaay fexe def de telle sorte que li nga xamante moom nga dugg li nga xamante ne ginnaaw bi nga defee étude ginnaaw bi nga xoolee li nga xamante mooy parce que y a une chose boo xamante il faut que a ressources. Mhm. ak suivi évaluation d'un projet. Mhm. projet da ngay dem tous les ressources que ça soit humain financier lépp lu mu soxla lépp lu mu mhm. laaj nga étudier ko nga xool fan nga mën a dem ba encore mais boo ko amee nag ba pare boo bañee projet naax saa yi da def lu ñuy wax suivi évaluation d'un projet suivi évaluation d'un projet nag yëpp ci projet bi la du début jusqu'à la fin Sylvie. D'accord merci coach pour ces recommandations conseils une dernière question euh, ah ah. Euh, ay groupement lañ nekk euh, ku ne xam na période élection lañ nekk mais tey booy gis euh, ñuy meeting ay femmes rek ngay gis ñu solal leen ay yére ah toogal leen pour di tàccu pour assister juste pour feesal chaise euh, ban moo nga leen di wax ban moo nga leen di wax pour loolu mën a war a mën a jeex fi Sénégal waaw xam nga xam nga moo bi may wax suñu femmes yooyu nga xamante ne mm-hmm. si ay nit di politique ñoom ñoo mm-hmm. leen di solal yére ñoom mm-hmm. ñooy toog ñoom ñooy def leneen ay deux mille cinq mille absolument et que et que dinaa la wax leen depuis dix neuf cent soixante ba jusqu'à maintenant loolu mooy am xam nga tey maanaam ni ni ni jeunes yi commencé certaines choses noonu la suñu yaay yi waree comprendre ñoom itam certaines choses mooy dañoo war a changer xar kanamu politique mm-hmm. politique nekkul ñu jox la benn xartum mm-hmm. nekkul ñu jiital la ngay tàccoo ko fecc parce que mm-hmm. tey boo dee seet loola fees assemblée tey assemblée tàccoo fecc moo fa am pourquoi parce que déception en tant que quelqu'un qui réside sur l'Union africaine bi may liggéeyee mhm. su ma demee ci yenn kuréelu Afrique yi soo demee dans leurs assemblées dans leurs instances de prise de décision mhm. boo fa fekkee sax femme da nga fa fekk femme boo xamante ne non mhm. femme battante femme boo xamante ne ose dire les choses femme boo xamante la muy wax daf kaa gëm noonu lay doxee il faut que suñu yaay ñu xam leen mooy xartum bañ leen jox bu ñu ubbee a franc benn dix mille franc ñàkkuñu benn doom wala suñu bàyyi joo xamante ne ju baax ju ko mhm. yërëm mhm. joo xamante ne moo ngi liggéey di ko indi kon ana lan la ko jox rek loo xamante ne am ko biir këram mhm. problème bi nekkatul ma topp la pour nga jox ma bi nekko mais dama lay topp pour nga changer réew mi dama lay topp nga changer Sénégal xoolatuma lan laa fay am ba nga yegg boo yeggee nag mu leer na ma leer yàlla yow parce que tey ñaata suñu yaay la ñu nax ci jox pour moom laay wax léeg-léeg dañ lay jox cinq mille pour cinq ans yow war a souffrir on benn cinq mille francs mais cinq ans ngay toog di ko parce que tey xëy na ba waa ji di campagne dig na la lu ne après doo am sax accès si waa ji mhm. je le dis nos politiciens c' est des faux types des mhm. personnes la yoo xamante ne ñi si wax dëgg dañ leen di compter mhm. xam nga koo xamante ne nag tey la muy ne ci biir programme am la muy bind ça reste juste de de l'écriture ça reste mhm. quelque chose noir sur blanc mhm. mais par rapport à la pratique et je le dis loolu mooy suñu problème donc suñu yaay yooyu il faut que ñoom itam ñoo ubbi seen gët ñu yeewuwaat ñu ubbi seen gët ñu takkuwaat ñu ubbi seen gët mais ñu xam ñoom itam dañoo bokk ci biir réew mi te am ci benn pour pourcentage bu am solo bu am dayo mhm. boo xamante ne ñoom it dañ leen a yaakaar ñooy pour ñu sukkali suñu nag mooy lan fa ñuy dem ñoo xam ko leen neex leen neex mais nañ topp borom vision borom vision nag du koy yemale ci kàddu kase borom vision mooy koo xamante day xar tànk tubaab nga gis ko dèjà mu liggéey balaa mu lay laaj la mu soxla. Mm-hmm. parce que loolu suñu problème mooy ay diggaane rek bu ngeen ma joxee ma def kay def day def balaa muñ koy jox c'est-à-dire dafa bokk ci jikko bi nga xamante ne nous en tant psychologue. Mm-hmm. ba mu mun ko dooleel ngir mu mën a teg dara ëllëg dara jooju la ñëpp ñëpp di jëriñoo ñëpp am daraja mu am. Mhm. kon donc je le dis encore fois nañu góorgóorlu na suñu yaay gën a ubbi seen i groupement de famille c' bien c' est quelque de très bien man mhm. je les apprécie parce que des personnes de haute facture ñoo fay mhm. daje. mais lii laay war a suuli loolu ñu nekk déjà <laughs> daan doole la. man je préfère ñoom ñu des foofu par la transformation liggéeyal seen bopp jaal seen bopp que ñu topp benn homme politique boo xamante na naax C'est-à-dire, on le fait pourquoi Pour changer le comportement des Sénégalais, changer le comportement des citoyens. C'est ça la politique. Faire de telle sorte que gouverner la cité, essayer de les comportements, ils sont néfastes, ils sont péjoratifs, ils mhm. font de telle sorte que nous positifs. Donc, on a signé à Yéou. Nous avons dit 5 000 francs pour 5 ans, mhm. mais nous faisons que nous avons imposé ça. Nous sommes des conseillères, nous avons accéder dans les instances de prise de décision. Il faut que nous nous disions, nous avons boobu ñoom itam ñu mun faa toog pour fëggal seen i moroom jigéen salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup coach merci ça merci voilà ñu koy euh, gërëm bu baax a baax pour euh, conseil yi nga xam ne moom la joxe waaye itam euh, orientation yi ak recommandation yi moom Moustapha si may fàttali coach la en entrepreneuriat ak développement personnel xelam màcc lool ci fànn boobu di ko gërëm bu baax ci conseil yi nga xam ne jox na ko ndaw ñi Yacine ban appréciation nga am ci conseil yi nga xam ne coach Moustapha. joxe na ko léegi laal na ponk yu bëri bëri. waaw Moustapha moom. Mhm. dañ ko ja dañ koy jaajëfal rek mhm. macha allah. Mhm. li mu wax lépp am na solo. te daf ñuy gën a yeewaat. gën ñoo dolli. parce que laal na porte yu bari macha allah. waaw kontaan nañ lool macha allah ci. li mu wax lépp. kontaan nañ. am na solo wax na ci risque yi nga xam ne euh, soo buggut euh, soo bañ a limité wu il faut nga jël ay risque mhm. euh, di ngeen bàyyi xel ci risque yi est-ce que yéen di ngeen di faral di jël ay risque sax <laughs> non ñun nag duñ jël ay risque parce que mhm. nit ki comme ni mu ko waxee mhm. balaa ngay dugg ci dara da ngay xool ci li ngay dugg nag laka naka la lay fan la la jëmee waaw du ñu tëb tëb rek ñu dugg dañuy xalaat di xool. Mm-hmm. waaw def ngeen loolu yëpp étude boobu muy wax étude euh, bi nga xam ne da nga ko war a def xool askan wi lan lay soxla ak loo xam ne tey boo leen ko defee par exemple ngeen jël seen un million euh, dugal ko ci dara est-ce que saytu ngeen euh, laataan ci dugg balaa ngeen di perte parce que étude de risque itam dafa am solo. waaw yooyu yëpp ñu ngi ci. Mm-hmm. ñu ngi ciy waxtaan. Mm-hmm. di ci def ay démarches. waaw d'accord émission bi daanaka jeex na Yacine Diaw ma bàyyi la joxe sa mot de la fin. Mm-hmm. waa xanaa dina leen jaajëfal rek bu baax macha allah di rafetlu bu baax émission bi. Mm-hmm. Euh, Sylva fay Sylvie Sylvie Faye. Mm-hmm. di kontaan ci yow bu baax di kontaan ci téléspectateurs yi ñëpp. ñi doon suivre ak ñi doon. bàyyi xel ci émission bi ñëpp. Mhm. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Mhm. looy wax ah. femmes yi euh, groupement de femmes yi groupement de femmes yi moom dama leen di gën a ñaaxaar rek ñuy gën a góorgóorlu. Mhm. di euh, bàyyi xel tamit ci lii kiy wax. coach ñu bàyyi ci xel bu baax. Mhm. waaw d'accord euh, merci beaucoup euh, donc euh, chers auditeurs ak euh, suñuy téléspectateurs ñu ñu doon suivre euh, direct bi Facebook ak euh, suñu page YouTube Rewmi FM di leen gërëm bu baax di remercier suñuy partenaire Afrimac Afrimac moo di projet d'échange d'entreprise de technologie d'entrepreneur et d'innovateur ci ay domaines yi nga xam ne impact économique bi daa am solo diggante îles Canaries ak Afrique de l'Ouest projet boobu nag Afrimac 2022 ñu ngi ko financé à hauteur de 85 pour cent par le FADER ci titre programme opérationnel euh, de coopération territoriale son but c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des entreprises le leadership et l'autonomisation des femmes euh, il réalise donc des séries d'actions promotionnelles visant à sensibiliser motiver former et renforcer la participation des femmes sénégalaises aux initiatives économiques et entrepreneuriales leur Euh, donc euh, ñoom xam nañ ni euh, les femmes peuvent changer le monde et l'impacter de façon positive nos remerciements vont à l'encontre de Sergio Yoré moo di président du Cabildo de Fuerteventura Doña Lola Garcia Martinez première vice-présidente du Cabildo de Fuerteventura Carlos Gutiérrez Robiana directeur Afrimac 2 Momar Dian Diop président association des Sénégalais de Fuerteventura et le personnel du Cabildo de 2023 di la gërëm bu baax yaa Yacine Diop yow mi jiite kuréel ndaw yi tey mag yi suba yaa leen fi teewloon waxtaan wi am na solo duma fàtte gërëm euh, Moustapha Sy euh, coach en entrepreneuriat ak développement personnel maa ngi gërëm pépp kuy auditeur ak auditrice su réew mi FM di gërëm Léon Paul Mendy mi féetewoon ci cabine technique bi ak Malick Faye mi nekkoon fële ca régie bi li ngeen di seetaan ci Facebook bi ak euh, YouTube bi moom moo ko waral donc di leen gërëm baax di leen jox di daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité.